ñi gannaaw bu ñu sante sunu borom julli ci yonentam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam no ngi bal haq ñep tay balu haq ñep yàlla nañu yàlla boori jéggal di dénk sunu bop di dénk kep ku nang ku ko dénk ñu gëna a fab sunu tànk tek ko ci taqwallah moy jëfe ay digëlam di bàyyi ay tereem lolu kat mooy benn bunt bu nit mën a jaar mucc ndax ma wax ci alquran ne bu ëllëgee ñey jëkk a génn taxaw nee mooy ñi nga xam ne dañoo fa moon seen tànk teg ko ci taqwallah nee na ñooña bant du leen xuri kenn du leen joxañ wa yunajji llahu alladina taqaw bi mafazatihim la yamassahum suu wala hum yaxzanuun ñu nekk ci bis boo xam ne nit ñi min nañ ko waaye léeg-léeg fàttalante ci ak jullit yi du yàq dara bis bu nekk mooy ban mooy bisu aljumaa aljumaa nag amoon na bépp dayo waaye ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikkee suñu borom digal ko mu di ci dajale mbooloo di ci julli julli aljumaa tusbaar ñu julli ko ñaar moom moo xam lam ca doon lam ca jublu waaye nag dolliwaat na aljumaa ji lam amoon yontu bi sallallahu alayhi wasallam wax ne amul benn bis bu jant di fenk so bu ca mel ni ajjuma ci ngëneel bis bu jant fenk rek ba so bis ba jant fenk ci aljuma al juma ci gën nee bis bis la bo xamne waxto nga ca wow Sa bu julit bi jullee ba selma ñaan ñaan googu yalla du ko del mo xam daa julli suba mo xam daa julli timis ba julli ge gi nga xamne bu ajjumay tàggoo ca la koy jullee diggante bi it saa bu ko soobee bu jàppee ba set jëfandikoo lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku ko ci man saa bu jàppee ba noppi na julli ñaari rakka bon ndax julli ak jàpp jàpp ak julli boobu ay seex lañ <coughs> saa bu ñaanee yàlla daf yàlla yàlla du ko delloo kon boog la ca mate sant yàlla bari na bokk na ca def gëm ñu def ab jullit te wax ak ñun ne yaa ayuha alladina amanu ida nuudiya lilsalati min yawmi aljumaati fasaw ila dikrillahi wa daru lbaya saa bu ngeen yeewoo ñu ne tey la bisub aljumaa ñu noddu mooy noddu gii nga xam ne bu noppee ca la ñuy tàmbali xutba ba fu mu fekk nit lu mu doon def na ko ba lu mu doon def na ko bàyyi te dem ca loolu nag li muy tekki mooy jox yitte bisub aljuma ak jullit aljuma jot na sëkk yonent bi sallallahu alayhi ne ku fab aljuma teg ko nii ci kaw loxoom bu nii nii mu wadd noonu la ko jàppe su ko bàyyiwut delliwut gannaaw yàlla dana fab ab tampon tampon bi muy tamponné xol yu tëju ya këyit wu nekk ci këyit yi ñu lijjanti ci kaw suuf daa am tampon buy tax mu doon këyit wa dëgg-dëgg am na lu ñu ciy bind bind ko ci bind ko ci ba mu ëpp ba mu bari lool waaye fekk tampon ba nekk gu ca tekki woo tekkee gu dara suñu borom mi ngi wax ne ci suratul ci suratil baqara bok ci suratil baqara fam tambale alif lam mim dhalika alkitab la rayba fi hudan lil muttaqin ñu ne ko humal man humal muttaqun mu ne alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ñoo seen mbir leer ñoo ñi gëm yàlla dëgg dëgg gëm yañ gis atte ca yañ gisagut fop sen tank tek ko fam leen ko tek lo lu ñuy def bu julli jotay ñu ko fa ñuk dem ca ak ku leen ko mëna digal lu ñuy liggéey it asaka lay jëk jëkk a génne door lañ ca bëgg a di ko jox ku mëna doon neena ñoo neena loolu ku ca nekk ci juk te bu ëllëgé do ko réccu xaaj ba ca des mooy ñi lànk inna alladina kafaru lànk nag tekkiwut bañ a doon ab jullit yaa gën naa yaatu lool gën naa yaatu lool suñu borom ne sow penku la nga ne soowu la rek yal nañu ci yàlla musal inna alladina kafaru sawaun alayhim a anzartahum am lam tundirhum laa yuminuun lo wax wax wax wax lañ bëgg dégg dong lañu bëgg ku leen ko wax ëllëg mi ngi ànd ak lii ànd ak laa mën nañoo gëm fi ci aduna ne bisub aljuma mën naa ànd ak tàngoor ñu nangu ko mën naa ànd ak sedd ab sedd ñu nangu ko mën naa ànd ak taw ñu nangu ko mën naa ak liw kese kese loolu yëpp mën nañ ko nangul aljuma ne mi ngi ànd ak bisub aljuma waaye boo ne àllaxira lii ak laa ak laa ñu ne ah wane ginnaaw yàlla nañu ci yàlla musal lañ leen ko teg mooy xatama allahu ala qulubi yàlla dafa tamponné tampon boobee nga xam ne ku mu ko tamponné ci xolam dootu dégg dootu gis mën na déglu waaye dootu dégg xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absaarihim gishawa da koo muur wa lahum adabun adim yàlla nañu ci yàlla musal نافق تبت ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وينافق كن بني فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ننك مويت اللول دي سمتان اللي كي بو خمنا الجملة تعمل كي سوى كي خنا بوك نجاك بوك غنا بنجلي أجن بنوب نحكت جنون تبي صلى الله عليه وسلم نانا كوبايي ووت نكال فايدة الجملة تكو فيكي سكولو خبوني نيمو ورد yàlla dana tamponné ca xolam ba te bu boobaa dootu gis dootu dékk yàlla ca la bu sax daal ne nag loola fa muy jëmal loola la fay la koy yóbbee nit mooy nit ku sàggan sàggan nag mooy nit ki dem ba xamatut li tax yàlla sàkk ko addunaa ko jay mbooloo ñoo ko jay ak pal moo ko jay te nee na woon fala taxurrannakum xayaatu dunya فخلن با ادنا اك لي سي بيرم بوم لين وور ولا يغرنكم بالله الغرور نين فخ با شيطان بوم لين وور ادنا نيمي وراني دانا كو جيغي غوفي ليغي جيغي غوفي دالون نكو باخ تي ني ديك ني داي دم دي دم دي دم با ياغ موي غيس يو كين دوت جيس ولا بو ني بار دوت جيس ndax jege sunu borom seytaane ne kii bu ko nit ñi xamee ba mu sàkk ay moroomam moom duutu amub liggéey moom seytaan dana torox fii torox na fële ba noppi waaye fële gën a dana fés ab sagam dana sàggiku xiirtal ko ci ne ko laajal yàlla fa seytaane nekk nga sàkkal ko pexe ndax ndax ñi mel mel mu ñaan suñu borom suñu borom wan ko màndargay seytaane yu mu koy ba ko ndax kenn dem aljanna yàlla moo ne woon ba noppi seytaane innaka min al munzarina ila yawmi alwaqti almaalum fii ak nit a ngi fi doo fi jóge waaye fa ko seytaane ma ne mooy fam ne ko ñaanal yàlla seytaane de te ne fi moom mu ne ko boo demee ja sàngam bés sàngam ñu ko tudde luuma mooy kay jaay nangam toog barab sàngam téere yi dañu tudd la mu doon jaay garab ga la mu tudd ak nam meloon mu fekk ko fa nuyonteeg moom yow seytaane xàmmee naa la mu ne ko wax nga dëgg mu ne ko carfal ne ko bettuma la daaneel ko mu jéggalu ko fekk ko ci beneen ja jéggalu ko ñetteelu ja ba ne seytaane daan ko dem bay génne paaka bu gën a ñaw ba koo ko yoroon ne ko jëraloo ma rey koo xam ne ñeent fukki at donc ko desee àdduna ma rey jugal demal mu génn xoolaat boppam ne ah kon ñeent fukki atama dese ah suñu boroom moo ne woon laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamian innahu huwa alxafuru rahim ginnaaw ñaar fukki at moo ko dese moom nee na ñaar fukki at yii daf ci tinkiku ndax xaw naa tuskare dëkke woor dëkke julli guddi dëkke xiif ak mar waay waay lu ko fi jar ginnaaw dese naa dese na moom ñaar fukki at ñaar fukki na ko na ko def li mu bëgg a def lépp ñaar fukki at day ko des mu tuub ko yàlla jégal ko ndax yàlla lu ma wax dana ko def ndekete ñeent fukki fan moo ko dese mu tàmbali ca la ko neex wala yaxurannakum billahi alxaruur bëgg na àdduna ndax gis na calan-calan ja fi am ak làcc-làcc ji am ci àdduna mu ñee ko waa adduna ne na na na dund ñun ñaar fukki at yi ñaar fukki at dese mu mu jéggalu ko yàlla jéggal ko ndekk ñeent fukki fan a ko dese mu faatu ci call call ak lacc lacc loolu mooy sàggan dem ba xamatul li tax yàlla indi ko fi te bu umpalee boppam day daal di umpale keneen yonent bi tekkee ne ku tegal yetti ajjuma yum julli ji wul te ngan ngan ci ajjuma xames na ko kenn du ko sàkkal boppam sharia mo nan li ak li kum dal jëlul nga julli ci aljuma may nañ la nga tok ku dem fam dekk man nako laaj ña fa dekk te borom borom xam-xam ku tegal yetti aljuma yo xane amu ci ngant lu sharia nangu niki doy dal aljuma li koy dal moy koy dal mom yalla day day fab tampon ba ne ko tap ci xolom ba dootu gis dootu dégg te ku gi déggatut waaraate gisatut waa sa bu ko gisee kuy ñàngal la sa bu ko gisee ku soof la xol ba tëju na ñii góorgóor nag bay dem ci aljuma ja nañuy moytu it lu leen ko yàqal te jaare ci te xam seytaane bokk na ca yonte bi sallallahu alayhi nee na buñ tàmbalee xutba bu kenn waxati gis nga bu kenn waxati daa jël la wax waaye daf nay booba ay jembaraay mu nga ci biir jàkka ci ay doj yu ndaw ndawaan booba melagul nee mu mel fu mu fekk nit it mën na ko faa dund nee na bu ñuy xutuba ku laal ab jembaraay képp tuxale ko fa mu nekkoon ndax bëgg fa sujjóot lu bari la muy am ci ajjuma ci ñàkk na ko léegi si suñ jamono loolu mën na ko wuutu fàttee fay sa téléphone mu ne car nga bàyyi na fi ñu ko xutba ba làmbatu ba daj ko làmb bouton ya ba xam bouton ya ne ko nii mu ne càll wala mu jël ko taf ci noppam ne dama ne ci jumaa ji man takallama jumaati wal imam yaxtubu aw massa alxasa faqad laga wa man laga fa la jumaata lah waaye nee na it kuy julli ji ajjuma it di lu ba aljuma ñor ko muy julli ci yit bu demee rik na xool fam toll rek mu toog fa bañ a jéggi euh, yonente bi sallallahu alayhi wasallam seen ko xam day jéggi di ñew jëm si sapp ci kanam mu ko diw agal suuf yaa ngi lor nit ñi te la ko wax li la ko teg mooy dangaa yeex a ñëw te waxoon nañ bu yàgg ne ki jëkk a ñëw nangam lay am ka ca am nangam ka am nangam waaye am nañu dañ fay bañ a yàgg moo tax dañuy nekk ba yëfee cafe ñu soo ko dem ñi xam ne it dañoo ñëw fekk de suite lu dul benn rakaar daal buñ ca àndee nañ xam ne am nañ jullit jumaa waaye ku fekk ñuy taayee daal kese kese nag bu jógee na jullit tisbaar sëriñ bi moo jàngale woon ci téeréem ne wa qul liman adraka fi tasahudi imaamahu qum wa salaataka btati day yóbbaal jullit aljuma kon bokk sàggan bokk ci ñi sàggan yàlla nañu ci yàlla musal suñu borom mi ngi wax ne bu ñu jàng alxuraan dee leen déglu tey dégg dee leen déglu yaa ngi koy dégg waaye dee leen déglu di sa boole instant ne pat laallakum turhamun kellantu dal ne ku ci wéetit déggut ku jàng alquran nay tudd yàlla di fàttaliku yalla di fatli yàlla boppam yàlla du fàtte waaye moom moo naan ana sama diggante yàlla di toroxlu ci jataayam jàpp ne mi ngi jàkkaarloog moom ne mi ngi ku mu jox cër lool moo noonee muy tooge lu muy waxe mu xam ne yàlla koy dégg mu sàmm ko sàmmin woo xam ne dana sàmm lool bu doon wax ci te fekk kilif kilifam ñu ngi ci feggam suñu borom rek suba ngoone si yam guddeeg bëccëg rikk waaye bu leen bokk ñu sàggan ni ku sàggan mooy koo xam ne fàtt na li taxoon yàlla sàkk ko wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa xiifatan wa dunal jahri min al بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين يلنا إن شاء الله مسلم كن بوك دعني دعني نه أجمع دعني دعاء تفني لغيري جي أم الجمعة الإسلام بنى لول كوي خيسة تب دك جم تب دك تفك دك دك بأم الجمعة الجمعة واركو فمام سكنتوا جم فوقنا أم الجمعة فا واي بلو لو بشويت bépp liggéey boo xam dañ koy liggéeylu tamit tàmbali aljuma rikk nañ bàyyi ba jul ba nit ñi julli ji aljuma ko ñaw bala ñoo xañ nit ñi julli ji aljuma ba yàlla di fab tàmpangam boobee di ko tàmpane ci seen xol yi yàlla ñu ci yàlla kon bo bokk na ci julli bokk na ci aljuma ci boppam it nit ki di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nee na aljuma ju nekk dañ koy wan diw julli na ci yow nangam diw julli na ci yow nangam diw julli na ci yow nangam biñ ko laajee ne kayfa salatu alayka ya rasulallah daf ne ba ca gën a néew da nga naan allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fi lalamin wala boog nit ki ne allahuma salli ala muhammad wa sallim yàlla noonu yàlla defal dëgg topp te musal ñu seytaane ki bakkan yaxfirullahu lana ولكم ولسائر المسلمين امين ماني لب لو خامني ابيستري جاي فك كو